yow de mayaatu boo yéexoon tuuti kër gi rip nga fi fekk. ribu jàmm. bi baa de laa fekk mu tëj mama ci biir néegam be yéeg ci kawam da koo dóor ba muy bëgg a dee. bi ma wax de. bi bi baa ba ko dóor bi baa ni ko mën a dóor yow. Ah, waaw kon baax na lii da ko wax. mooy sama wax ji rek. <laughs> nee naa ko lu tax songoo ma wala nga songu ma yaatu boo ko defoon tey dootoo ko dolli. mën nga ni mu def Massa daa ñaaw toog ci kawam dakaa dóor a dóor dóor ba maman moom xamul fu mu jaar ba génn néeg bi ma ne ko lu la xale bi def mu ne ma damaa duulal dem ci mayaatu ak Nafi Mbay ne leen maa Nafi Mbay euh, mayaatu da koo xasee caga. xam nga lan la biñ toogee ci salle bi di waxtaan. waaw bii baa taxaw di déglu ndeke bii baa bi maman ne cëpp ci kër gi sama xuloo baa Nafi Mbay daaw la. cëpp da la def mu woo ko ba ci néegam. ne ko waaw mayaatoo ni nii moom na fi mbay lu ñu xuloo na fi mbay mayaatu wax fi na fi mbay lu ne ne ko caga caga nga sanf day la la sërëm guddeeg bëccëg suba ngoon cent franc lii de lii de la wax maman eh, allah loolu la bii baa may wax bii baa jaay ma làmmiñ bu rëy ne ma xale bi dama koy yedd dama koy teg ci yoon bu baax yow yow yow ay waxi Biba yow moom moom moom nga toog di wax naa ay dama koy teg yow Biba yow xamoo Biba ba tey kon. nee naa ko dëgg la warulaa warulaa dem nettalil nag loolu laa ko wax ndax comprendre moom wax. moom moom moo wax wax ji ba pare bëgg bëgg a jàpp maman ne. ah après mu may nettaliwaat lu kenn xamul. bàyyil ma Biba yow man. tey de laa pare ci moom loolu yëpp moo ko fi wax. léegi nag man damaa sonn ci Biba Biba mi xam nga lu ñu koy fam comploté ko mu génn kër gi. kuy génn kër gi yow. bii <laughs> noppalu. ndax amul guddi bu may génn fii te gisu dégguma bi baa ci duus bee ñu xëppoo saafara daa takkoo takkoo takku nag ba kenn xamul lu muy niróo su ma ko nee bi baa yow li ngay sangu bari na xam nga lu mu ciy teg lu ma gën a ci kër gi laay wax ah waa baax na <laughs> xam nga ne du génn ndax nee nañ liggéey moom buñ la ko jiinee nga niyee ko bu dee dëgg la day toj ah. moo taxoon daf may naan osé lu ma dëj ci kër gi laay wut xam nga kooku parewul génnagul <laughs> ay man bi baa te yi laa jomm ci kii te nag bu waxee nag ba ëpp la laa laama nga ne ma wax dëgg barke yonent bi te bu jugee defaat lu gën a pire lu gën a pire su dinaa ko yaa ko war a yaa ko war a yedd nekk li kay dëgg la waaw damaa bu ñuy dóor doole bu ngande boobu ak ngande waaye moom daa xëcc sama doom nga xam ne enfant prématuré la moom bu mu judduloo motulul motulul waaw. Hmm? dalal waa dalal. dalal de yaa ngi def nag erreur bu mag a mag a mag ndax sa yow sa doom nga war a waxal déjà Nafi Mbaye ba tey gisu ko. moom dafa dégg ne kay na fi daa dégg li mu wax yëpp moo tax mu daw làqatu ci te biibaa moo li mu fi wax yëpp moom moo ko wax loolu loolu la wax foofu waxul dara fi mu daw làqatu jaan munoon na ko matta foofu jaan munoon na ko matt wala mu daanu ci kaw terrasse bi lan la koy wax baaba Dakar amul ay jaan ah déedéet foofu fu mu làqatu daa wóor amul jaan wóor na mais bu waxul woon lan moo tax muy daw di làqatu jàppe su muy jaggee naf su ma ko jàppe yaa ngi def erreur nag ci Nafi Mbay moomu ndax ku baax la. lu ñun ñi dëkk ak moom xam nañ ne ku baax la te déjà moom narul woon sax dóor bii ba naru ko woona dóor di. dóor mais koo gis ngay dóor daa gis bii ki nga war a waxal nag mooy sa doom ji nga xamante ne lu xew ci kër gi mu porte à chambre bu ne mu fëgg fa nettali ko jigéen du tàmm ay nettali soo defee loolu def erreur ndax wax ji bii moo ko wax. li hmm? liñ fi wax yépp moom moo ko wax. loolu man sama yoon nekku ci en bu mu du laal sama doom te bu ma ko jàppee wallaay dina kam ni dina kam lu ma ko kale doom bi ñuy dóor. baaba xanaa doo ma dee. baax ni ko bi mu juddoo grève moo amoon crise béy laa ko ngenteel. béy waaw. waaw loolu loolu tey ko. kaaw yaa tooñ sa doom nag. béy nga ko reer. waaw li ya tax mu bari wax. ba pare yar ko fi mu ko yaree waxee bëri waxan seen yoon nekkul si loolu. waaw bëgg xam mooy Nafi Mbaye moom. léegi man xam nga la laa la bëgg a conseil xam nga yow da bokk ci kër gi léegi te ba nga ñëwee woor si ba tey ñëpp la bëgg moo tax nag ma bëgg nga yedd sa doom yeddal sa doom gis nga Nafi mbay mii pàppam mooy karaw yi bakkanam ku ko laal ku ne rek ay rongoñam génn ndax yaayam la ko tuddee. xam nga doom daa sax ci xol waxatuma la bu ñu tuddee sa yaay. mooy biiba mi biiba sama yaay laa ko tuddee moo tax sama xol la nekk. waaw kon baax na bugguma kenn fu léegi bëggoo ko ko laal kon yedd ko wax ko mu bàyyi nettali ndax jigéen du tàmm ay nettali. lu mu nettali. liñ wax yëpp moom moo ko wax di. Hmm. moo dem nettali maman mii nga xamante ne histoire bi mu ko nettali ba muy xew maman xaajul bay ñëw ci kër gi. lu mu ko koy nettalee luy paase. loolu yoon da jigéen dina am jikko jooju. yarewuma ko loolu yarewuma ko loolu bu dee loolu ah, la moom moo ko def bu dee loolu moom moo ko def wallaay dama koy nokk waaw ah, kon baax na dama koy boo ko deful de xam naa ni bu paa bi ñëwee dégg histoire bi hmm. nga taxe ci muy yow muy bii dina leen génnee këram gi subhanallah génn kër bii da leen di delloo de delloo delloo dee dee moomu ko gënal waaye duma kenn sama teraanga bii duma ko yàqal duma yàqal teraanga bi gis nga bi mu ñëwlee bu léegi Fouta gis ni mu mel ak fii bokkul jii daan mun naa góotum man kam naa de kam naa de bu dee bii ba la na sama doom la kam naa weesuwul fu mu koy ñafe ah, naa ko ñaf kon jóg ci balaa muy trop boo waxul woon lii na fi mbay man dugg ko de dugg ko baat ku baax la nag bee boo nga fexe noo jàppanteeg moom sa jàmm ci kër gi day gën a bari te lu mu yor yaa ko moom hmm. baax na nekk si jàmm waaw biibu moom biibu biibu lu ko dal lu ko dal teraanga bu ñeer bi nga nekk ci aljana di deewuguloo moom muy dem di fen yàq sama teraanga bi ma ñëw fi deux semaines ma am fii maa ngi sensé leer nekk beneen nit bii ba bëgguma yàkkal teraanga boobu dégg du ko nangu naas ma dem si ma baal boo ko sama doom mooy fen Nafi. Vamos. Hey. Kumik tam jeri tamo Jerry, pull, tamu Jerry, wala ko pull du tax ñu ne jeri <laughs> xool xool xool moom jiwadi kale yi noonu la buggee war naa la moom pël la xamuñu ko nag buñ ko xamoon dinañ ko moytu pël la de tooyee wuru soogoo jeeya tooni jeeya tam jéeri loolu kay tur pël la sax boo ko déggee nga xam ne tur pël la tamoo jéeri Kenapa? Ça va? noo def. alhamdulilah barkal. Alhamdulillah. jàmm tan. alhamdulilah. barkal. bismillah. bismillah. bismillah ça Alhamdulillah. Eh, barkal. Ayo ya kau. Eh, mal. ça ah. eh, va. ça va hmm. <laughs> ya, bien. waaw Balla. Balla miin ko miin Balla baabay bii. waaye man baamu biiba man la. dañuy wax biiba sax man sax léegi yóbbu nañ ma si biiba bi waaye ku bint wanaa biiba ku bint. waaw la bint. man la mayaatu man la wujjam bi. waaw ma wax mayaatu kay wax na ma ko. Hmm. yow la biiba nangu jëkkëram. <laughs> ah loolu dara biiba sama xarit la. Hmm. loolu dara. hey bii wallaahi. ça va bien. <laughs> naka mu nag yaa ngi si jàmm. wax na ma kay mayetu xaw ma ma maari mhm. wax na ma kay wax na ma sa mhm. wax dégg naa muy wax sa wax chaque jour. dëgg la. ça va da ngaa génnoon. waaw dama génnoon. ankay ah, ankay ah, bi waaw moom sama xarit la ah, hmm. mu yëgee tamit yaa ngi ci kër gi kontaan naa vraiment. Hmm. waaw kër gi moom la. sa kër la. <laughs> loolu moom. loolu moom neex na di bi mu ñëwlee fii ba léegi kenn musul ma wax Sois le bienvenu billaay kenn musul ma wax loolu yow nga wax mu Sois le bienvenu maatu bu taa wax na ma baax na nag. Hmm? ah kër gi sa kër la kër bii loolu mhm. moom kenn dama xam ni kenn musuma wax loolu rek. Ah, kenn mësuma wax ne kër gi sa kër la melum yow yaa am ko wax. ay waay ay waay. wallaay kon nag xamal naa la sa mbaag bi nga nekkee. Mm. Eh, bii bu wax na ma ko. Mm. waaw góorgóorlu rek. juf mm. jër waaw. am na ñoo xam ne ay doomu xaraam lañ. déet papa ah, dañ may kattal ci kër bi. <laughs> wallaay di ma kattal. kii ndey la kaw Ndeye waaw. mooy kale bu soof boobu mel ni pengu rek. ah maman. ah maman la maman koy maman la dafa soxor de. véré mbaam la. indi sil ñëw mu wooma sabu li ma def daf mu torakal waaw mu ne ma yaax maman aana seen tey benn la da ngeen ruloo ma maman Anne def la nopp. waaw lool la ma wax. nee na ma amul borom kër borom këram dafa dee. ëpp naa wax de. loolu di la ma wax. borom këram kay nag voyage la demoon te léegi mu ñëw. li may wax si jikko doomu xaraam yaa ngi noonu loolu la ma wax mu dugal ma ma dem si mère Anne mu mu waaye lu ne la ma wax damaa rus sax. Hmm. non kon mama. wallaay dina xam ni duggal na loxam ci lofu nax wallaay dina ko xam nga sama gàcce ma am keroo